Malang Sonko maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Malang Sonko nga nekk euh, coordonnateur euh, bu collectif des contractuels de la poste fi toll nii ngeen di amal grève de la faim lan mooy problème bi exactement nga mën ñu ko expliquer largement. ok avant ngi leen leen jaajëfal tamit ak euh, ñu ñan ñu soutenir ba tey fu ñu toll nii. Euh, ñun suñu problème bu tax tey bu ñu def grève de la faim parce que ñëpp yëg nañ ko problème bu fi nekk yàgg nañu ñaxtu def nañu point de presse à neuf ans bi ñu ñëw defaat cité avertir l'opinion publique jusque là amul retour ñu ñëwaat encore def grève de la faim xamal ni ñun fu ñu toll nii suñu bàkkeen sax xaj na ci parce que suñu su suñu ak ak yelleef la ñu salfaaji te loolu duñ ko nangu ñu ñoo def par parloo ñoo xam ne ñu bokk ci ñun ñoom la ñu jël pas si côté ñun ñu bàyyi ñu mm. daanaka ñun loolu la ñuy tàkkun demb pour xeex lool euh, léegi yéen euh, contractuel lu poste yi euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement ba ñu ba ñu dàq leen depuis combien de temps ngeen génn ci ci poste bi ak lan ngeen fa doon liggéey ñu xam. waaw poste ñun bu ñu fay dugg man mi man mi wax ak yéen def naa ñaari contrat te am na ñoo xam ne man foofu laa leen fekk depuis 2013. jot nañoo def ñaari contrat avant may agsi ñeneen def nañu trois ba quatre contrat à l'heure bi ma leen wax nii poste am na ba léegi contracteur te loolu du yot parce que directeur bu fi nekkoon dafa newoon moom day dàkk ñëpp problème poste moo am mu xëy mu toog trois weer ñetti weer mu jëlaat ñeneen maanaam mu xaaj mu bàyyi ñële mu jël ñenn ñi loolu lañuy ñuy wax parparlo ñun loolu d'accord ñu ci poste nag liggéey bi dafa bari hmm. liggéey dañuy liggéey ci wàllum euh, courrier maanaam di yónnee ki yónnee yónni ak euh, xaalis koppar ak comptabilité maanaam jël xaalis bi di ko compter poste daal nu may xayma yëpp seen liggéey dafa bari mhm. waaw kon mun nañoo jël maximum de de de jeunes d'autant plus que ñoom nee nañu emploi lañ soxla kon mun nañu dugal xale ñun ñëpp ñun ñëpp mun nañu dugg foofu fekkee du problème. yéen ñaata ngeen actuellement ñaata contractuel ngeen. ñun euh, trois cent soixante onze lañu. contractuel. mais est-ce que euh, le fait que ñu wàññi woon leen euh, nekkul ni entreprise poste dafa nekk ci crise mooy crise bi ñuy déglu tout dégg tout le temps ñi koy wax est-ce que du looloo tax euh, ñu wàññi yi. loolu la ñu gëmloo nit ñi xam nga dafa yomb nit ki di ñëw chaque fois di wut ay réinformation nga koy nëwee naan poste dafa am problème mu jàpp boppam wàññeeku dem mais man li ma la wax tey poste amul benn problème parce que bos bu doon am problème tey directeur du am sañ-sañ ba di créer ay centre te centre bu bees bu ko créer da nga koy habiller defar ko te personnel bu fay liggéey dang koy reclasser ak centre bi ci boppam dang koy reclasser te bu déggee reclassement xaalis mi maanaam koppar bi day yokk te jot na ñu mu jot a affecté foofu yëpp da leen yokkal seen am indemnité indemnité boo xam ne ku ci gën a ndaw dix mille francs nga am kon maanaam am na ay trente mille indemnité am na ay cent mille indemnité am na cent cinquante ça dépend a grade occupé centre bi te loolu ñu parce que dans les am na problème xaalis ba pare yow ngay reclasser may leen xaalis reclasser leen te loolu loolu loolu loolu c'est incompréhensible. est-ce que euh, jéem ngeen approché wu DG de la poste wala autorité yi nga xam ne war nañu yëg problème bi est-ce que yëg nañu ko. waaw man collectif bi boo xoolee ñu ko wër. ñaam maanaam ñu ko tënk ñëpp dañoo jàng te boo déggee jàng maanaam ay ndaw la ñun dañuy topp yoon balaa ñuy ñaxtu balaa ñuy def leneen di yàq faaw ñu dem ci autorité yi administrative administrative yi. dem nañu ci premier ministre jébbal ko suñu leer pour naan ñun dañoo bëgg toog waxtaan ak moom depuis le 17 mai de 17 avril ñu yokkaat beneen 24 avril ba léegi tontooguñu ñu def demaat ministère tutelle mooy ministère communication mooy bu ëmb post dem nañu rang dem nañu lettre d'audience kenn tontooguñu ñu dem ancien DG def nañu lettre d'audience recevoir uñu demaat DG bu bees bi def nañ ko lettre d'audience bopp d'autant plus que ba mu jëlee service yàggul mais xam nga service boo fa duggee soo ñëwee bu fekkee liggéey moo la tax a jóg problème yu gën a urgent da nga koy jëlante ñun loolu lañ koy ñaan ñëw na fekk suñu lettre d'audience bindal nañu lépp nañu woo ndax ñun ay ndawam lañu si si boîte bi lañ bokk amaana contrat moo suñ contrat moo jeex mais dañ ñoom nañu jël mu déglu ñu ñun duñu saagoo ñu defuñu dara juste que ñun dafa am lu ñu alerte pour ñu xamal ko ñun injustement la ñu arrêté te injustice bi moom moom lañ bëgg a am na àdduna bi yëpp xam. Euh, euh, léegi euh, comment dirais-je actuellement yéen a ngi amal grève de la faim après grève de la faim bi est-ce que amaat ngeen beneen plan d'action pour autorités yi mën a taxaw ci seen mbir. waaw mun naa la fu ñu nii ñaar. ñaaru combat lañ jot a def mooy meneen combat bi sitting bi foofu lañu ñu annoncé woon grève de la faim grève de la faim moom la ñuy def primature débb commencé ko mais force de l'ordre ñu ñu continuer si grève de la faim dañoo ñëw fekk ñu ne ñu ñun trouble à l'ordre te ñun loolu la ñuy am mooy lan da ngay perturber nit ñi ni dem ak ñëw ñu war a liggéey liggéeyuñu te lu ñun defuñu ko kon lan moo waral lu ñu mel ñu yàq suñu activité yóbbuñu ñu commissariat depuis suba ba ngoon ñu ngi ñuy bàyyi ay vingt deux heures dakaar nga xam ne wóorul agression loolu rafet tey PM premier ministre dafa war a xam ne ni ñun ay ndawam lañu ñun nous sommes des citoyens sénégalais ñun amuñu leneen lu dul ñaxtu amaana moom suñu recevoir woon lii du am ñu rek li rek la ñuy ñaan nañ ñu recevoir ñu déglu suñu problème te mun ñu ko ñu mun ko regle mm-hmm. ndax ndax dañoo sonn ñu ci gën a bëri ay fair de famille lañu amuñu ñu ñuy jëndee xar tabaski tey tabaski bu ñu nii di jublu mais dara la ñu yore suñu poche te loolu dafa métti. Mm-hmm. loolu lañuy ñaan ñu jàppale ñu ñu jëlaat ñu suñu poche ñu liggéey amuñu leneen ñun sàcc bëgguñu sàcc. reyuñu kenn liggéey lu ñu bëgg ñoom nee nañu somage day jeex Sénégal ñun nag ay chômeur lañ kon kay yomb na la recherche d'emploi hmm. léegi looy xaar ci seen DG bu bees bi Maguette kan bi ñu tabb teg ko foofu ci boppu poste waaw nga ne ma ne lu ngeen di xaar ci DG bu bees bu poste bi di Maguette kan waaw DG bu bees bi man maa ngay maa ngi koy féliciter Euh, oyof xam ne poste su ñëpp la donc pour briser ko day métti te ñun ñu ngi koy ñaan moo xam ne am na problème bu fi nekk mooy maanaam problème euh, ancien foncier non reconduit ñoo ñooy ñaxtu pour mu jël leen ñu toog waxtaan pour mu jëlaat leen ci biir boîte ñu liggéey te nag information nga leen di jox. Hmm. personnel bi dafa manqué poste parce que boo xoolee village yu gën a reculé région yi gën a reculé amuñu personnel bu doy ñen yeneen kii boo ko boo jëlee Misra booru dugg fële la ne benn receveur moo fa am nga jël Diaobé receveur bi moo fa nekk Mif receveur bi moo fa nekk Diaobé daanaka li ci gën a bari. léegi avec ça nan ngay produire ay ay ay ay ressources recette recette nan lay duggee benn nit nit nit kese mënul liggéey loo xam ne ni téeméer kii cinq nit mun nañ ko liggéey donc dafa yomb rek nañu jëlaat rek ñu liggéeyaat poste ñu delluwaat suñu bureau yi rek Sénégal jëm kanam ñun loolu lañu ñu bëgg. d'accord merci beaucoup Malang Sonko ñu ngi lay remercier. allez merci beaucoup Ndeye Comba maa la war a remercier jaajëfal. ñuy fàttali ni Malang Sonko yow yaay euh, coordonnateur bu collectif des contractuels de la poste mm-hmm. jërëjëf. merci